jërëjëf jógal waaye waxtu bi jeex na dégg nga loolu noonu la ko waxee tam ci xutbaam sallallahu alayhi wa sallam waa lii kan moo ko sañ ak kan moo ko man wax leen ma ko wallahi nit am na martaba ca yàlla ba tàyyi xel xalaatul muy am li li ma wax lu ma wóor la lii lépp dafay feddali mayu seydina limaamu laay sallallahu alayhi ak doon du du caagi nag dañu naa ab yonente la yem foofu déedéet du yonente bu nekk yaa man loolu dée wallaahi déedéet doon gu doon muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi dafa dolleeku ci kaw may ak yonenta loolu nag moom la rawe ñépp loolu moom lañu ñu ci dab ka ci ah lool la mbir mi foofu la ne kenn manul lool sama baat sa kaw Seydina Limaamu Laay nee na malaaka may rucc sa ruub déggal dinaa ko xool nam déggal dinaa ci aw meloom bàyyi laay nee na nga wax ji déglu leen ki ngeen gëm rutti saru dinaa ko xool nam kay rottee malaaka mi rocci saru dinaa xool nan la koy roccee xoolal loolu façon bi mu koy roccee te néew ba xool li maamu toog di ko bégal ci aw meloom gis nga li ma doon wax ngoom néew bi dina toll foo xam ne mu ngi ne jàkk waaye làmbañ wi damm na am na foo xam ne nag dañuy damm sa làmmeñ pour wan la image bi buñu ñu bëggee dara rëcc ci image bi ñu bàyyi salaam mañ nga wax ñu domm ko tolluwaay la bàyyi laay nee na bu làmmañ wa dammee rek commencé naa gis loo xam ne mënatu kaa wax càngaay la it dinaa fa teew càngaay la it dinaa fa teew dégg nga loolu am na lu ko jiitu malaaka mission la yor pour wan la ne baatab xayru xalqillaahi du caaxaan malaaka yi ñu baax lañu baroomi may lañ parce kenn amu ci bàkkaar at bul fàtte loolu ñu foor lañu ñu am ay may lañ surtout kii def loolu moom lañ tudde malakal mawt malakal mawt malaakam dee kooku seydinaa limaamu laay sallallahu alayhi am na lu la bëgg a wax ci moom mu toog di ko surveiller nan lay rocceeru ñii wax di nga ko dégg ci keneen ku toll ni malakal mawt bu xamee ne kii toog mooy ki toog dina xam nu muy roccee te ki toog xam na ne mooy rais al rais al imam al imam kenn du moom malaaka wet na ko jibril wekk na ko malaaka yi gën a foor wekk nañu ko nit yàlla yëpp wekk nañu ko ku ka wegul rek amul cër ci yàlla ku ka wegul da amul cër ci yàlla mais mag ñi ne woon fii sax di fi woote ak di fi wax lu baax ak def lu baax ñoom ñëpp seedeel nanu ko ne bu ñëpp meloon ni moom ak waa këram sawar a gent bu ñëpp meloon ni moom kéefër jeex lii ay ay awliya ay kàngam ñoo ko wax fii aha bàyyi laay nee na lay dinaa fa teew xoolatil lii sangakat yaa nga fa gisuñu ka moo tax ñu bañ ñoom sangakat yi nañ bàyyi xel torop ci loolu man bàyyi xel torop ci mbir moomu te lu bàyyi laay wax alayhi salaatu wasalaam dëgg la waaw càngaay la it dinaa fa teew càngaay la it dinaa fa teew julee ga it dinaa fa teew te néew ba day janoog jëmmam sëy naa limaam lan la la bëgg jóge àllaaxiri jël si àddina étape par étape duma uute dara damay surveiller wallaahi Seydina Limaamu Laay nee na cangaay la it dinaa fa teew jàngaay la it dinaa fa teew loolu laa bëgg sangakat yi xam ko te jàng ni mu waxee ne nañ ko sange noonu parce que jàppeel na mu nga toog boo ko sangee sangin wu uuteeg wu mu joxe ah bàyyil xel loolu tamit moo tax sangakat yi nanu farlu jéem a seet mag ñi walla boog ñi xam dëgg-dëgg sunna boobu nan la tëddee ñu jàng ka jàngin wu wér te itam sella te itam sella sell loolu nañ ko bàyyi xel it sell nanu ko def nanu ko defe na mu ko waxe ndax nee na mu ngi toog Seydina Limaamu Laay nee na mhm. càngaay la it dinaa fa teew càngaay la dinaa fa teew bàyyil xel na mu tërale càngaay la mu ngi toog di la xool ay xoolal lii ah seet leen ki ngeen gëm ban heure seet leen ki ngeen gëm may leen ma rek ma àggali tomba bi te néew ba day nan muñ rek ñu àggali tomba bi mu ne te néew ba de waaye damm nañu làmmeñ wi xam ngeen ne xar yeeg muus yeeg ñu mel ni ñoom yooyu yëpp dañuy jàkkaarloo ak moom dañuy dégg yuuxi néew yi ñuy mbugal ci biir suuf parce que ñoom mënuñoo wax moo tax mënuñoo nettali ndax kiy nettali bu wax yooyu examen bi ñu nekkee ñun day yàqu dañuy tricher waaw looloo tax néew bi danaa jàkka ci lu mu mënul a wax di dégg lu mu mënul tontu waaw di dégg lu mu mënul tontu bu nu boo ca jàkka ja mbooloo ma dox si kër sëriir limaamu jiitu néew ba xool ca aljanaa ki xéewalam moo leen di jël si de bu nu ba woo ca jafe bàyyi leen xel ba tey moo tax njàngale mu rëy la lii xutba bi la résumé xutba bi la moom la résumé noonu déglul moo tax ñii ànd ak ab néewam di waxtaan ak uyu portable yooyoot war nañ ko bàyyi xel mu ngi mu ngi ci biir déggoo mu ngi jiitu tey bu nekkoon ci sunu biir ndax di nga yëngu baa ngay uyu portable baa ngay waxtaan déedéet sa xel xalaatu ko waaye kii mooma taf sàmm ah Seydina Limaamu Laay nee na bu nu yeggee ca xabru ba ba ñetti góor dugg ca biir ñeenteel ba mooy Limaamu Laay te néew ba day janoog jëmmam kan moo ñemee wax loolu foo xam ne ay frontières yu garaaw la lu ñu naa munkar ak nakiir ñoo fa war a ne waaw xool leen kii moo am doole kii moo am martaba kii moo am may yellanta koon waa àddina xam ko yellanta koon waa àddina xam ka wallahi yéene nañ ko ñëpp yellanta koon ñu xam ko seetal lii moo tax yonent gi ñuy wax ak yu mel noonu dañu dégluwaatul lii ñaari malaaka yooyu nga xam ne ku ne day muslu ci ñoom mu ànd ak yow wala loolu mu ngi koy wax si xutbaam nam azimatil xilxati aswadaani azraqaani aynayni mhm. وفي يد كل واحد منهما مخمات سمام نينا فلو اجتمعت انس والجن على تخريجها لا يقدرون والله هو اخف في يد كل واحد منهما من ريشة والله سمام نينا يقدان الميت ويسألان عن توحيد ربهما وإخراج رسالة النبي فإن أجابهما بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رقباه وسهلاه وكرما وانصرفا وبقي الميت في النعيم إلى يوم البعث وإن لم أجابهما بالوحدانية ضرباه ضربا عظيما وعظماه عذابا شديدا باي لاي نيب نو ينجي تخبروا ba ñetti góor dugg ca biir ñeenteel ba mooy limaamu te néew ba day janoog jëm malaaka moo am sañ-sañab dugg fa foofu Seydina Limaamu fay taxaw bu doon day taxaw malaaka mi taxaw nga ne waaw waaye malaaka yi duñ fa jege du taxaw ñu taxaw déedéet Seydina Limaamu laay nee yooya saa kuréel bu ëpp bib kuréel gën leen a zikar dal sikkar daal di ni jaar sama néew ci sa kanam sama taalube mu ne duñu ko duñ leen gëtal mu ngi taxaw waaw bu ëpp bib kuréel gën leen a neex baatab sikkar di ni jaar ci sa kanam ah waxtu wee jeex waaye Seydina Limaamu xoolal li déggal lii déggal ma lii loolu tax nu war a góorgóorlu ñu war a góor góorgóorlu matal bu ñu matalee mu def lii dégg nga udxilukum tariqa najaa moom la ñuy faram-fàcce nii nag bàyyi laay ne déggal delluwaatal si tomba boobu Seydina Limaamu laay nee na يسعى كريل ببيب كريل قال لنا نيق بعد بذكر دال دي نجاس ci sa kanam ñoo ëpp kuréel bi gën leen a neexi baat egsi di la teeru si wala boobu laxsa xoolal boobu waxtu lan moo ko dàq ah loolu loolu jar na lu ne Baay Laay nee na gaañooñu danoo rafet di xeeñ lu neex di xeeñ ca kaw ca ndigalal xaalixu naa ñu leewu néew ba yóbbu firdaw si këram ah lay maxtaar dégg de du ñoo ko déggandoo ah la ilaha illallah Seydina Limaamu Laay nee na firdaw te foofu mooy palaas ba ngeen di xaare bis ba yàlla yi wàllu buftu ba ku nekk door a dem këram loola avant première rek la te defe nekk ko defe naa boobu avant première xoolal loolu ndekete sax demaguñu suñu kër yi firdawsi foofu mooy place ba ngeen di xaare firdawsi place ba ngeen di xaare ba yàlla yi wàllu buftu ba ku nekk door di dem këram inauguré ñu ko ngeen dem jiitu di fa xaar waaye jën wa bax mu diw turam resam wa moo fay sunu palaa ñu naan ca maawu kaw sara ku nekk door di dem këram Seydina Limaamu Laay nee na nu sangoo ca kaw sara nooneel ya foofu lay dañe mbañante foofu lay dañe soppante daw sunu yaram Seydina Limaamu Laay nee na wildaan ya ñooy mu xalladoon ñooy sañse saytu ay palaas di teeru gaaya daan sikkar di roy rosool ci ay sunna xale yi ak jigéen ak jigéen ña fa yàlla sos duñu ay doomi aadama est-ce que wax boobu dégg ngeen que duñu doomi aadama ay nit lañu waaye duñ doomi aadama jógewuñu ci aadama yàlla leen bind ci gëtt gëtt la leen mooñaale gëtt ak àjjana ci la leen binde jógewuñu ci maam aadama ñoom xale ya fa nekk ak jigéen ña fa ne jigéen ñi jóge àddina ñoom ñoo jóge ci maam aadama mais jigéen ñooñe yàlla leen bind waaw moo leen bind ci misk ak anbar ak xale ya fa ne ñooñu muy tudd noonu waaw nga xam ne seenu yaram ñaxaw yi bi gën a foor fii ci àddina kenn du leen dendale seenu ñax rek ndax dañ leen si mooñ si lañ leen mooñaale ñooñu lay wax bàyyi laay ne bawuma leen mhm. ba ngeen di tabbi aljana ba toog ca lal ya fàtte ma ba fàtte yàlla seen borom loolu nag la nuy ñaan yàlla ah wax dëgg yàlla bëgguñ kaa fàtte bëggunoo fàtte yàlla limaamu ne baw ma leen loola dafay jëmmaal fooraayu xéewal ga ak màggaayu xéewal ga limaamu ne baw ma leen ba ngeen di tàbbi aljana ba toog ca lal ya fàtte ma ba fàtte yàlla seen boroom kon loola foor na yal nañ ci yàlla boole bàyyi laay nee na bu ngeen bëggee am lii ma wax ah. da ngeen di jaamu rabbana te topp sunni Mustafa ku nekk door di dem këram in wasaytum ga ma doon wax xam ngeen liñ fi dégg neex na ñun ñëpp bëgg nañ ko nee na nag bu nu bëggee nag bokka ci loolu nanu farlu ci li mu fi bàyyi digle yi ñu nekk ci def ca lanu man tere yi ñu bàyyi lépp bu boobaa ñu bokk ci loolu kon nanu yàlla boole Seydina Limaamu Laay nee waaju ci mooy samay ndigal malaaka may rutti ci kantanam la kay rutte mbol dem ba dal ci saw yaram dégg nga de boobu nag garaaw na waaw boobu mooy sofaan ñu jóge kenn bëggu ci nun moo tax bu kenn sofaan nanu farlu rek ci limu ne newoon ndax bii moom wax dëgg yàlla bëgguñ kaa dégg waaw te li kuy indi rek mooy fooye lii mu fi bàyyi lii mu fi bàyyi buñ ko fooye bu ñu ko fooye rek mu seetaan ñoom malaaka bi kon limaamu yaay rasulullaay limaamu yaay rasulullaay billahi maami abdulaay limaamu yaay rasulullaay kerjakan ada cara Baiklah ya, ada kerjakan ada cara ngi wax Momar Binta moom te booba dooleem jeyeemu na ba mu njaloo mu juum yóbbaale na malaan ma dem ba paase yoof ba doon julli subaat sangoo ka lépp fàtte na Mamadou Saxiir nee na foofa la daldi rotte suuf te suba am ñu jóge yoof doon dem ndakaaru seen mu boog foofa ñu yem ilahana ñu ñëw soloog seyduna limaamu njool ma yegti malaan ma waaja jog subhaanallahi rabbana seen maam limaamu ku weddi laajal gaaña doon tawat fa moom ngir géej ga doon baawan ca kër ga njinni leen ñëw leen ñu ñaan ilaahana seen maam li maamulaay ànd ak gaaña dem ba ca tefes rëddëw rëddëm naa yéena dul xam waaye géej xam na ni ma mel rabbana keroog la géej ga mujj a ga gaaña door a xam ni maam libaas amul moroom ay mujjizaatam yéeme na ku weddi laajal taalu beem ba ñuy doon yedda tax ba moom mu mer banaan man maa ngi dem axtimu fi ixwaanina li ixwaanina mu dal yéen waxandeem limaamu laay ni gaañi ndeem tànkam bi jóg na foofu dem duma imaami rabbina Mamadou Saxiir nee na mu yenu yen ba di taxaw suba suba ba mu taxaw ba ñépp tëdd mu taxaw yii mu disaat kay yéeme na njool ma ko of mu nelaw ba mu xëyee suba ñëw naa tuubtu yaa imaamana yaa imaamana ku weddi laa ba dammeel bu nuy wax ba ñuy wax samba lawbe faal ndawam ne ko demal yoof ca imaami rabbana nga nee ko demeel nee gént na ba jàqalool mu gis takkat waxul ndaw la lu dul ni gént naa seen maam kenn du moom li maamu ni ndaw li boo delloo nga ni dameel ba mu jullee geeg tam xarit gëla julli ñaari rak ci yaasina rakk bu nekk jàng na ca juróom ñaari yaasina ginnaaw faatixa yéene ca istigfaari rabbina ba tëddee ba tëddee la gént a ñu jox ko ñetti fees dell ak jëree jaas moom la gisoon ba jàq na Seydina Limaamu seen maam naan ndaw la boo delloo nga ni dameel mu sedd la réew ma ñu naan menn ma moom donga mu naan meneen ma moom la doon yónnee di laaj ci fàkki naa yii mujizaat musuñu koo gis déggu noor ku ka jagoo ginnaaw ba yónneen sango suuf ñibbi nee kon dëgg dëgg seen maam mooy Rasuulu Laahi bàyyi looy mu baax